ñun ñoo constitué comité bi nga xamante ni ñoo teg li ni mel ñu duppee group groupe Thiaroye 44 fas yéene lancé ni ki tey yemook benn fan ci weeru décembre 2022 dixième édition festival Thiaroye 44 ñu ànd ci nag ak la commune de Thiaroye Gare bi nga xamante ni def na ci kimtalaay kàttam pour taxawu li ni mel suñuy fàttaliku Thiaroye dañ ko Euh, ci 1944 dafa nekkoon bërëb boo xamante ni histoire bu doy waar moo fi xew naam fii la xewee waaye Afrique yëpp la laal muy histoire u tirailleur sénégalais di suñuy maam yi nga xamante ni demoon nañ ci couleuru France ngir xeex ngir France doon laaj seen àq ak seen yelleef bu fekkente ni am na ci ay xalaat ay initiative yoo xamante ni ñu bëri ñi ngi ko doon jéem ci wàll wi ñu fàtt leen ni rek ñooñu nga xam ne ay soldaar lañu woon nekkoon jóge woon fii yi naam duñu ay sénégalais rek ndaxte ay africain yu bëree ngi ci waaye li amoon fii la xewee fii ci caaro yi ci 1944 ñooñu nag du yoon ñu fàtte leen du yoon ñu bañ a gestu seen sunu ginnaaw di leen ñaanal di fësalaat seen njàmbaarte ci li nga xam ne defoon nañu ko moo waral ngir fësal li mel ñun ñu garde li nga xamante ni moom la ñu teg ci seen i mémoire ñu duppee ko groupe Thiaroye 44 ngir di leen fàttali saa su ne groupe boobu nag ñu ngi ko teg sosoon ci atum 2017 ñi créé fi benn festival am benn càmbar benn woy boo xam ni ñu ngi ko daan faral di ko teg suñu ndodd muy euh, pour la mémoire maanaam di leen fàttaliku di leen ñaanal di fësal seen njàmbaarte naam mën nañu jéggale waaye li ni mel kenn mënu koo fàtte dixième édition bi nag dañu koy structuré maanaam càmbar ko ci benn ponk ponk bi mooy loolu fexe ba askanu Sénégal askanu Pikine askanu Afrique rawat na ci ñiy yeewoo Caaroy xam ne li xewoon fii te Afrique yëpp di ko màggal fii la xewe woon ci seen gox di Caaroy gaar loole nag moo waral ñu jël ko mu événement ay événements yoo xam ci fateli mi ngi amone ci guddik fanweeru fan ci weeru novembre japp benn fan ci weeru décembre atum 1944 lolé nak muy histoire bo xamanteni aduna àdduna wërngal këpp kenn mënu ko faté ca namu démé ak namu soso 10 dixième édition bi nak nek na événement bo xamanteni dañ koy pérenniser rek ndax juroom ñaar juroom ñeenti édition jaar nañ fi buñ démé tay ji bañ naan fukkeelu édition kon fàttaliwaat rek la fexé ba. xale yi nga xam ne ñoo mujjee juddu xamuñu histoire bi maîtriser wuñu histoire bi ñu ñuy dund à travers ce festival li nga xam ne moo xewoon fii ci camp Thiaroye bu ñu fàtt leen tamit ñoom groupe Thiaroye 44 ci kaw loolu fàttewuñ ci kenn fàttewuñ ci ñëpp ñi nga xam ñi ngi yëngu ci aada ak cosaan ba tax ñeent activité phare yu gën a fës lañ ci teg benn bi mooy li ñu fi dajale tey maanaam taxaw def une minute de silence ñaanal leen fañu gënal leen fiñi ndax conférence bu mag buñuy Camp Marchand animé le professeur Massamba Diop le proviseur du lycée euh, euh, Camp Marchand bu Rufisque suñu paré yabuñu avons dinañu def ay atelier ay plateau jëmé ko ci wal islam ci graffiti

lii nag defuñu ko rek ngir eh, ngumbaay ak mbumbaay mais dañuy ko def ngir naq